Mais à notre grande surprise, nous ils étaient là-bas, ce séminaire, à notre grande surprise, ren ñu indi laat déficit ñu ne leen pas ñu ko fay léegi nag comme da ngeen a bañ ne da ngeen koy fayloo par force on va aller à l'inspection du travail nous, àtte ñu comme nous ñoo fi quand on a déposé la requête ils ont licencié 13 personnes comme motif nous ne da créé un groupe whatsapp ci covid bi di ci waxtaan di wax lo xam da ngeen di saga directeur yeeg da ngeen di def nangam da ngeen di def nangam licencier personnes biñ démé inspection délégué yi inspecteur rejeté cette demande d'autorisation pour les mêmes motifs mais il maintient quand même le licenciement des cinq travailleurs pour les mêmes motifs nous disons que nous sommes debout wallahi lazim buñ ko nangu lu mu lu ko jaral lu ko jaral rek ñun jaral nañu ko buñ ko nangu tay que le DRH, depuis qu'il est là, en 2014 2013 mon DGAB 2014 on était plus de 467 actuellement on est à 292 imaginez le nombre de suppressions de postes qu'il y a eu en même temps en même temps il y a eu des recrutements comme imaginez le nit ñoo dem ak ont postes et tout ça c'était pour permettre à Mimran de vendre la société pourtant sooy jaay sa société même boo bëggee wàññi mën nga woote def ay départ fay nit mais non non dañuy créer un motif fallacieux pour d'autres nit je vais donner un exemple un seul exemple on a un camarade qui s'appelle Ndiago Diop dafa ñëw di bale da daan bale cour bi muy bale ñu war ñu fay suñu bénéfice fayaguñ ñu ko mu ñëw directeur rombo ko DGA mu nuyu ko ne DGA mais son bénéfice quand ñu koy il a fait comme s'il avait peur quoi def ni xaw a il n'a pas peur parce que fu ne lay dugg waaw daf ko nit na ko dégg ci àdduna daf y a un gars da doon conteneur yi dafa ñëw dem port fàtte benn kayit yor papier accéléré di dem romb DRH fif DRH na kii mooy kan ne gardien yi nañ ko téye ci porte bi mu waaxu dem ne ko mais yow yaay kan bay dawal nii ci biir usine bi waa ji ne ko mais yow yaay kan ba ma koy laaj mu ne ko ah xamoo may kan dinaa la woon may kan ñu def ci ay quelque temps waa ji dem port gaare moto ñu sàcc moto bi mu ñëw ne da koy dàq travailleurs yi ne ko ñun dañuy cotiser jënd moto mu ne non dama koy dàq mu dàq ko donc loolu lañuy ñuy dund biir Grand Moulin c'est-à-dire il y a un tuyau qui est là-bas du un tuyau qui est là-bas di ñu di ñu di Grand Moulin mosuñ ko dégg ci lu bari mais nous avons décidé tey non ak y ak yeneen daal ak yeneen ak yeneen ak non fa nekk loo xam dafa yàgg ils veulent faire toujours plus et beaucoup plus de bénéfices toujours ils ont des objectifs suñu nous ren tant de bénéfices déwén dañu war am tant de bénéfices, takk ko ko France wala ñu yóbbu ko États-Unis maintenant comme le marché devient de plus en plus saturé la concurrence est là tout est là lan lañ wax maintenant la classe ouvrière Ligne ñu amoon dañ koy on va les exploiter dañ koy ŋacc pour yokk suñ bénéfice même meew meew bi nga xam ne c'est reconnu dans le code du travail meew bi qui jox ouvrier il faut tok bam neex ko ay mew gloria la won mu ñëw calculer ne su joxé ay sachet mew moy gëna yomb il va diminuer le budget de de au moins deux tiers c'est-à-dire su doon joxé 1000 francs dina joxé 300 mu génne mew bi di ñu jox ay mew donc c'est ce que nous vivons Les tenues on n'en a plus avant on avait au moins deux à trois tenues par an une paire de sécurité tous les six mois maintenant sécurité donc nga y des masques masque Sénégal Comme nous manquons mais masque Sénégal les pays les plus élémentaires nous ne les avons plus pourquoi il faut que nous dajale ñun li donc nous sommes là aujourd'hui pour contester tout ça nous sommes là pour retrouver notre dignité nous sommes là pour montrer à tout le monde qu'il nous faut un nouveau type de travailleur un travailleur participatif un travailleur Brasil, na Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador,